fees parce que kii dafa am lu bëri lu def ci man dama ko xam euh, au cours de route laa ko xam mais rëccu ma sérieusement muy jigéen yoo xamante ne lu ma gën a marqué ci moom mooy jour bu ñu njëkk a dajee mu ñëw suñu tour théâtral dafa am benn conseil bu ñu jox conseil boobu marke ñu marqué sama paa bi ma nekk seen sëñ Abdou Mbengue ba tey fi ñu toog dañ koy muy jigéen ñi mu waxtaan ak ñoom am fulla ak fayda seen bopp dañ gëm seen bopp théâtre du caaxaan nit da ngay gëm sa bopp bul bëgg a feeñ ba di joxe sa bopp si noo xamante ne ñaaw na parce que moom exemple la si moom mu am fit nag am fierté fu mu toog ci biir góor ñi di ko wax nga xam ne kii li muy wax lu dëgg la ci moom yoonam métti na waaye lépp lu mu def da ko def ak njub may jàng ci moom lu bari boo gisee ba émission ma lay moom laa bëgg def mu tudd référence moom mi si moom laa xool bokk na si lu ma inspiré moom pour référence boobu ndax sama référence la moom te su ma nekk moom tey jii fit bi ma am tey si aar da ciy joué lu bari bari du ma def lenn loo xamante ne woo ma ko téléphone waxtaan seeg moom mu wax ma xalaatam te mu nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla ruboowu ñëpp la xol bi dafa rafet man gëm naa ne lu mu am billahi wallahi xolam bu rafet bii moo ko man waaw kon ñu koy waxee rek lépp lu ñuy def rek moom moo ñu ko tette jàngal ñu ko wan ko tey dañoo topp ci ginnaaw bésu Rouba bésu association des artistes comédiens de Grand Yoff rawatina ñu ñii nga xamante ne tey jii ñun ñoo yor bureau bëgg ruba bëgg na saa yu gëstoo gis na ñu nit bëgg nañ saa yu gëstoo gis ko ndax suñu force la jigéen la suñu biir mais bi laay ndaanaan tey moom bu soob yàlla dañ sa taxawaay taxawaay boo xam ne ku fi ñëw dina xam ne ruba mi ak ay gone am wax dëgg yàlla bàyyiwuñu ko ginnaaw te ñu ngi liggéey bu baax ba di ko ñaanal nag li mu bëgg si ay projet moo ko xam yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg ci sëyam moo ko xam yàlla na ko yàlla may ndax nit ku baax la te yéenee nañ ko te lépp lu mu am lu ne yéenee nañ ko ndax xolam rek man moom wax dëgg yàlla mu bëgg rek te yàlla tax te moom bëgg ma te yàlla tax <laughs> bëgg ñëpp te yàlla tax ma koy ñaanal rek lii nii nañ ko gën a préparé mu mu raw nii c'est ren première la moom ak euh, Rouba sama xol nekk tamit ay xale yu déterminé ñoo xamante ne genn wàll gi yëpp mën naa ne sa du aar mais dañ ko bëgg te yàlla rek tax surtout ku ko jiite nga xam ne Kaolack la dëkk mais fii lay liggéeyee mais dafa gisul ba bëgg ko rek te yàlla tax du artiste du dara kon ça veut dire moom liggéeyam moo set bu liggéeyam setul woon ama kon gars yi duñ ko bëgg ba ba ba ba moom mii tey ji bu liggéeyam setul woon ñun ñu tamit duñ topp ci ginnaaw ndax jigéen bi di mën góor